moo ko digle moo ne wakka birhu takbira na nga koy kàmbar foo toll moo digal ñi woor moom sunu borom tabaraka wa taala ci bu weer wa jeexee mu ne leen wali tukmilu l iddata wali tukabiru llah ala ma hadaakum na ngeen matal weer wa woor ko ba mu feeñ wala ngeen woor ko ba mat fan weer su boobaa na ngeen kàbbar seen boroom màggal ko ci kaw gindi gi mu leen gindi ngeen sante ko ko loolu moo tax kàbbar bari ci dundu jullit te mooy allahu akbar dégg nga ko noonu booy nodd allahu akbar booy taxawal julli ga sax muy liqaam allahu akbar ngay baamtu booy dugg ci biir julli ga baat ba ngay jëkk a wax avant ngay jàng sax alquran mooy allahu akbar booy tuxoo ci ponk jëm ci ponk yëngatu boo def ci julli jëm ca leneen lu nekk la koy yëgal nit ñu ne yow kat jóge nga ca la nga nekkoon mooy allahu akbar sooy wër kaaba yàlla nga allahu akbar sooy dox diggante safa ak allahu akbar sooy rendi lu mu mën a doon allahu akbar sooy sànni jamra allahu akbar kon kàbbar boobu sunu borom tabaraka wa taala li tax mu sako jullit yi mooy xol bi fees fees ak lan fees ak yàlla fees yëkkati suñu borom tabaraka wa taala wala nga ci sa xol ba béréb ba fa mu war a nekk ci sa xol mu nekk foofa ci kaw ak màggal ak fonkeel ak wegeel ci biir loolu la jaam bi di amee yëg-yëg ne yàlla daal amul dara lu mel ne moom amul kum nuróol amul moroom amul kum bokkal loola moo koy jural buy jaamu yàlla dong nag lay jaamu moo koy jural buy ragal yàlla rekk lay ragal moo koy jural bu tàllalee loxoom di ñaan yàlla rekk lay ñaan moo koy jural buy sàkku wërsëg wala muy sàkku wér gi yaram wala muy sàkku njaboot bu jub yàlla dong nag la koy ñaan ci loola lay xame ne mboolem dogal yi ci loxo sunu borom tabaraka wa taala dong la nekk xol bi bu fekkee ne fees na ak loolu adduna ak li ci biiram dafay daal tuuti ci kanam kooka yu màgg ya nit ya teg seeni bët muy nit ña nga xam ne jàpp nañ ni ñu màgg lañ bañ di leen wet moo xam ay góor lañ wala ay njiit lañ boroomi pale lañ boroomi am-am lañ yëdul jeex yooyu yépp kii yàlla màgg ci xool bi ba àgg fi bu koy xool bët sew la koy xoolee day gis lii lu ñàkk solo la lu dul loo xam ne jaam bi da koo denc fa boroomam ngir bis bu wàccee bàmmeelam fekk mu doon lu ko amal njariñ mbokki jullit yi bu yàggul rek lañ doon teeru fii weeru koor démb lañu weeru koor tàggu yeex tàkk lan ca def ci aw yiw mu doon loo xam ne loolu sunu borom tabaraka wa taala dencal la loolu yàlla na bari lool sell waaye liñ ko def ci ay njuumte ci rëcc rëcc loola doon aw lay wu tege ci suñ kaw boo xam ne dañuy ñaan suñ borom tabaraka wa taala ak njéggal ca loola tey jii nag nekk bisu korite ngeen xëy wuy ji seen borom ci ak julli leen sant suñ borom bi nga xam ne <coughs> képp kum sant nga def ab yoola nga lay xaar bu am solo su fekkee ne jëf ja sell na kon digal nañ leen ne leen woor leen bëccëgu koor woor ngeen ko digal nañ leen ne leen naafila leen guddi koor naafila ngeen ko topp seen boroom kon nag yàlla na suñu borom tabaraka wa taala nangu te jéggal ëllëg xam nañ ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ña doon woor dafa am bunt bu ñu leen jagleel ci àjjana boo xam ne naat ci àjjana ci la bokk ñu koy wax rayaan su boobaa dañuy wax ne yéen ña doon woor jaare leen ci bunt bale yéen ngeen dajeeg seen boroom ci mbég moo xam ne mooy gën a màgg mbég mi ngeen bégoon bi ngeen wooree ba toll ci dox weeru koor nag mbokki jullit yi buñ ko xoolee dañuy gis ne dafa mel ni misaal ci suñ dund gi ndax dafa am lu bari lu mu dund gi yi nu doon dund ba ci jëkk moo di ne weeru koor daa am fu mu tàmbalee am fu yem xam ngeen ne suñ dund gi dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem ramadaan a ngi nii bëkk dem rek la tàmbali mi ngi jeex na tey naka noonu suñ dund gi boo àggee ci eh, muy jeex day mel ni ñaari fan wala ñetti fan la ci yow lu gaaw a gaaw lay wër ba xam naa ne daal am na fu mu tàmbalee am na fu muy jeexee loolu nag li mu war a jural jaam bi mooy mu teel a préparé jeexit woowu fii ñëw fekk fu mu nekk ci lu baax fekk mu fàggu loo xam ne dana ko mën a jëriñ ëllëg moo gën képp yegg ba ak dundam di jeex mu naan rabbi irji'un yow saa borom damaa bëggoon ngeen delloo ma ma amaat fi ay fan la'alli a'malu saalihan fi ma tarakt ndax yu baax yi ma mënoon a def te defuma ko moom laa bëggoon ngeen may ma man koo def ñaareelu nuróo ba moo di weeru koor dafa gaaw lool fi muy duggee ak fi muy jeexee daal day mel ne daanaka ak melax dundug doomu aadama it noonu rek la demee noonu la gaawee nit ki du bàyyi xel mukk ne dundam gi jamono yu nekk mën naa jeex toujours mi nga am yaakaar defe ne daal ñuy faatu moom waru cee bokk bu gisee ku génn àdduna mu ne xëy na man loola bokkuma ci ñu ngay feebar mu ne ak ah ginnaaw feebaruma kon man paas di këlabu fekk mbir ma du noonu dund gi day jeex jeex boo xam ne bu gaaw a gaaw ndax téeméeri at sax boo ko fi amoon it bu dara desul lu dul dem boo xoolee da ngay gis ne fan yu néew la kon jullit bi teel a góorgóorlu ci bàyyi loolu xel ba lu gaaw loolu du dem muy dund gi muy réccu naan yaa layta ni qaddamtu li xayaat yi ak a neexoon ba ma nekkee àdduna ma defoon lu baax loolu yaa ngi fii tey te borom bi may na la wér may xel may la man-man kon jublu ci jaamu yàlla yi te bàyyi yu baaxul yi ñetteelu nuroog dund gi ak weeru koor moo di ne weeru koor dafa doon benn occasion boo xam ne dañ la ko wutal am fu mu am fu mu te lu la ci faat mënoo koo wuutal ndax même bu la fi weneen weeru koor fekkoon it weeru kaaru wee day indaale jëf yoo xam ne moom moom moom nga ko war a def la la faatoon ci weeru daaw ba moom mënatoo koo jot mukk loolu moo tax dundu doomu aadama itam bis bu jàll bu nekk lu la ci xas raw raw na la mënatoo koo dabuwaat ndax bis buy ñëw bu nekk moom itam day indaale tey jëfam yu la war jëf yooye soo ko defee doo mën a fay la weesu woon kon loola moo tax weeru koor nuroo lool ak dundu doomu aadama ci loolu juróomeelu nuroo bi moo di weeru koor wi gis ngeen nit ñi niñ farloo woon ci jaamu yàlla di jàng alquran di naafila boole fa ak di woor di wattandiku wax ju bon di wattandiku lépp loo xam lu yàq koor la booleeg soxlay àdduna yi li muy xat-xat ak li muy bari bari nit ki fexe na ba yooyu mu dugal ko ci loolu da lay wan ne même bu weeru koor wi jàllee su fekkee jaamu yàlla moo la ñor def lu baax moo la ñor danga nga mën a def lu baax la nga war a def lépp comme ni nga ko doon defee ci weeru koor wi ba noppi di yàq dara ci sa liggéey kon góorgóorlu gii nga doon ci weeru koor boole ko ak jëf yi nga xam ne moo doonoon yi nu waat fexe ba jaamu yàlla yi dugg yittey jamono dugg kooku aw lay la wu tegee ci sun kaw wuy wane ne bu koor gi jàllee lépp lu baax loo defut itam amoo aw lay mënoo ne dafa bari soxla yi dafa bari ndax yitte yi bari woon na soxla yi bari woon na te fexe woon nga ba dugal ci weeru koor wa ak yitte yamu laaj mbokki jullit yi def lu baax yemul ci weeru koor weeru koor du jeex mukk yóbbaale lu baax lépp li fi nekkoon ci lu baax lépp a ngi fi li ñu la lépp ci lu baax mi ngi fi te koor sax mi dax koor mu gàtt ngaa ngi fi boo xam ne sunna la boo xam ne sàmmonte moom lu baax a baax kon mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp kulla rek suñu borom tabaraka wa taala mu sàmm ko dañuy danoo doon ay nit ñoo xam ne danoo wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sàmm suñu tawxid suñu digganteeg suñu borom sàmm roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunuy jaamu yàlla kooku mooy engagement bi nga xam ne dañ koo jël suñ diggante ak suñ boroom kooku nañ ko sàmm nañ sàmm julli te di ko def ca waxtoom ak nam gën a rafete ndax kat julli la ñuy laaj ëllëg de su baaxee lu nekk mën naa baax waaye su baaxul dara tuutu baax gannaaw bu pas-pas jàllee ku ajul woon te am kàttanu aj na aj bala koo tële ndax kàttanu yaram mën na faa jóg kàttanu am-am mën na faa jóg kon ku ko mën na fa def rafetal jëme ci ay waajur yiw la woo xam ne du fi jóg ramadaan yóbbaale wu ko ku ciy dund nga def lu baax lu rafet jëmale ci moom ku ci génn àdduna nga ñaanal ko yërmaande suñu borom tabaraka wa taala bu fekkee jullit la woon rafetal jëme ci njaboot geeg doom yi jokk bokk gi rafetal jëme ci jirim yi ak ñi ñàkk ñi sooy jaay nga maandu sooy natt nga nattal nit natt bu mat sooy peese nga peese peese bu mag wattandiku wax lu dul dëgg ci lépp loo xam ne dafa aju ci jaay ak jënd ndax kat loolu bari na fexe ba yor melokaanu dëggu ci wax ak ci jëf melokaayu amaana muy ak wóor lépp luñ teg sa loxo ci ndénkaan nga fexe ba mu dellu fa mu a dellu melokaayu yërmaande melokaayu maandu ba booy àtte doon boonte da àtte sa bopp sax nga àtte ko ci dëgg melokaanu sori bépp jikko boo xam ne bu ñaaw la moo xam wax lu amut la moo xam wuruj la moo xam tooñ la moo xam ak naqari deretam xool bu tàng yooyu yëpp jullit bi daf ko war a wattandiku wattandiku nag riba ci bépp xeetu jëflante riba kat ci juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy alak doomu aadama ci lañ bokk asabul mubiqaat yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax kooku ci la bokk te sàmm gis bi ndax yi ñuy gis ci jamono te mu ñaaw bari na lool kon damm sab gis bokk na ci jikko yi nga xam ne ramadan da ko war a bàyyi ci noonu rafetalit jëmale ci jigéen ñi soxna yi sàmmoonte ci ñoom kóllëre gi nga xam ne da ngeen koo fasanteeg suñu borom tabaraka wa taala jigéen ñi it war a góor góorgóorlu bu baax ci def lu rafet ak wax ko ak joxe ca la am ñu joxe ca fi sabilillahi ndax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soñoon na ci jigéen ñi de ne leen musal leen seen bopp ci sawara ndax xool na sawara nee na gis na la fa ëpp doon ay jigéen wattandiku leen génn ak col moo xam ne bu baaxut la wattandiku leen doon jigéen ba noppi sol colum góor wattandiku leen saakuwante beeg jaxasoo beeg wéet beeg joxante gi ay loxo sunu borom tabaraka wa loolu lépp da ko xaraam ramadaan dafa war a bàyyi ci ay jikko yu rafet yoo xam ne suñ génnee danoo war a soppiku ci wàllu jikko ak ci wàllu jëflante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku koor soppiwut yàlla amut soxla ca lekk ga nga bàyyi woon ak naan ga ndax loolu yàlla doyewu ko dara waaye yow lay defar yow lay tabax ba boo génnee yor melokaan ak i jikko ne boobu tëg ya nga yoroon jikko yooyu nag dafa war a doon yoo xam ne jullit bi da koy meloo ba faaw waaye da koy meloo yi ci képp ku muy jëflanteel da nga koy gis ci moom ak ku mën a doon nag moo xam ab jullit la sax wala dug jullit jikko yu rafet la war a yor ci ku muy jëflanteel moo tax suñu borom tabax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan nit ñi booy jaxasoog ñoom na nga jaxasoog ñoom ci jikko yoo xam ne yu rafet la koor daf nu yar ci jikko yu mel noonu loolu mooy tax jullit bi génn ci koor am yëg-yëg ci mbokki jullitam xiif bi mu doon xiif mar wi mu doon mar te sañul woon a lekk sañul woon a naan da ko war a fàttali ñi nga xam ne ñoom dañoo dëkke xiif dëkke mar ndax amuñu lu ñu lekk te ñooñ mooy ñu ñàkk ñi ñooy waroom aajo yi su ko defee loolu war naa def ci moom yëngal ci moom bëgg lu baax ba tax képp koo xam ne gis na ko mu tële tam tane ko mu dimbali ko mbokk jullit yi aajo woon nañ lool day jikko yu rafet yooyu ñu jëmbat ko ci ndaw ñi jëmbat ko ci ñoom ca kër ga jëmbat ko ci ñoom ca daara ja ak école ba jëmbat ko ci ñoom ca jàkka ja jëmbat ko ci ñoom ba ci média yi nga xam ne sax dañ koy seetaan ak a déglu mbokki jullit yi ku xool xeetul islaam tey da nga gis ne askanul islaam ñu ngi dund natt boo xam ne bu metti la ci tàqalikoo ak ay deret yu bari yu tuuru ak noteel boo xam ne seeni noon not na leen waaye ñu xam ne jullit yi situation bi nga xam ne moom lañuy ñuy dund duñ ci mën a génn delluwaat ca melokaan bañ yeyoo lu dul su fekkee ne dañoo soppi seen melokaan yi bopp ñu war a gëm nag ne ak lu mën a xew borom bi tabaraka wa taala dafay dimbali dafay dëgëral diineem ji di dimbali dëgëral itam ñi nga xam ne dañ koo gëm borom bi moo wax ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin nee na moo teg boppam dimbali képp koo xam ne ku ko gëm la kon gëm nga lu am solo la ak defaraat ko wéral suñu borom moo ne in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum su fekkee ne def ngeen li leen yàlla sant ci seen diine nee na suñu borom tabaraka wa taala day dana leen dimbali jàppale leen dëgëral leen borom bi nee na inna la nansuru rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yowma yaqumu l ashhaad borom bi nee na moo féetewoo dimbali ak jàppale ak dëgëral yonentam ya ak ña leen gëm fii ci àdduna ak ëllëg dundug àdduna nag ak yi ci nekk yépp ci ay neex-neex ak i metit yi ci nekk yépp ci ay xéewal ak i nattu du caagi ni foofu la la am solo nekk du caagi ni mooy balance bi ñuy xàmmee lu baax ak lu baaxul du caagi ni fa ñuy xàmmee ku perte ak ku pertul li am solo kay waloor bi nga xam ne mooy bi am solo ci balance sunu borom tabaraka wa taala mooy walooru pas-pas ma am solo ca marché bi sunu borom tabaraka wa taala mooy marchandise u gëm yàlla ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala ci ab jaamam mooy pas-pasam nattu bépp pas bu tegu ci kaw mooy ngëm yàllaam féete kaw lépp loo xam ne xeetu bokkaale la ak caaxaan ak mooy yàlla kon xeetu lislaam mbokki jullit yi xeet wu yàlla dimbali la xeet wu yàlla dëgëral la lislaam diine la ne mënee su koo xeex xeex ko wuute wut ak lëppaalëpp wuy naaw ñëw di jéem a fay làmp courant bi di tàkk sunu borom tabaraka wa taala nee na huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi li yudhirahu ala diini kulli walaw kariha almushrikun nee na sunu borom tabaraka wa taala moo yónni ab yonentam waaye diineem ji it moo koy téyal boppam ba tasaare ko mu feeñ ba féete kaw ci lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla wu tegul ci yoon la ba diine islam féete ko kaw mu ne loolu doonte naqari na ñi nga xam ne sax gëmuñu diine islam waaye nag ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala ak jàppaleem boobu dafa tegu ci programme moo di léeg-léeg mu yeex lool de ba mu metti fekk la ko waral ci jullit yi la sunu borom nee na wa ma asaabakum min musiba wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir lépp lu leen dal ci musiba nee na xam leen ne loolu yéen yéen a ko fàggu ci seeni loxo nee na yàlla sax dafa jéggale lu bari waaye su doon lu ngeen def mu jàppe leen ko kon kenn waxatu sunu borom ne awalamma asaabatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hada nee na bi musiba wàccee ci seen ko mu joxe ca misaal ca bésu Uhud musiba mu metti wàcc ci kaw jullit ba yonente bi yàlla la ko fa dal dal ko fa la dal saxaaba ya dal leen juróom-ñaar fukk ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu ci xeex boobee ay jullit taxaw di laajte ñu ne waaw lii nu mënee am yonente bi yàlla ak i àndandoom ñi di leen def nii moo tax borom bi ne qultum anna haada waaw lii nu mënee am borom bi ne qul huwa min indi anfusikum ci seen bopp la jóge yéen yéen a def li ko waral ndax la leen yonente ba sal doon sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko fa bàyyi def leneen musuma ñëw wàcc ci seen kaw wala lenn ci ñoom ñoo ba def mu ñëw wàcc ci kaw ñëpp loolu moo tax bépp musiba boo xam ne bu tege ci kaw jullit yi la tey di metti ngir ñi defaraat ko ci seen bopp lañ war a delluwaat defaraat seen bopp ba seen mbir teguwaat ci yoon su dut loola mbir ma day defe loolu yi nga xam ne nag moom la jullit yi def ci ay tooñaange seen diggante ak seen borom ak i càggante yoo xam ne mën naa yeexal ndimbalu sunu borom tabaraka wa yu bari danañ ci tudd rek ay tomb yu néew boo xoolee da nga gis ne ba ci jëkk mooy bokkaale bari na lool bokkaale bari na lool ci askanu jullit tey te bokkaale mooy fekk lu sunu borom tabaraka wa yeeyoo moom dong nga jël ko jox ko mbindeef moo xam mbindeef moomee doomu aadama la wala jinne la wala seytaane la wala malaaka la kon bëgg nit ñu baax nit ku baax nga bëgg ko ak respecté ko ak fonk ko loolu wërta àgg ci nga yëkkati ko ba teg ko place yàlla saa bu loola amee bokkaale ngay tasaaroo ca kaw suuf te kooku lor rek li indi ci biir biir jullit boo xoolee <clears throat> ci geneen wet nga gis lu bari ci ay biddaa yoo xam ne xeeti ay mbir yuñ tudde jaamu yàlla la nit ñi dugalal ko seen bopp ci diine ji fonk ko fonkin woo xam ne day mel ne lu yàlla santaane wala yonentam wala sax ñu gën ko fonk nañ war a fonke lu yàlla santaane loolu mënta bari ci aw xeet ba tasaaroo ca ñuy toog di séentu ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala ak bu nga wëlbati ko ci beneen wet xool gis mooy yàlla yi sàngari tasaaroo riba tasaaroo jigéen ñuy dox def yaram neen tasaaroo caaxaan yi tasaaroo ci kaw suuf publicité yi koy def ci média yeeg ku dul média yi bari foo xool fu nekk ñi wane lu bon jullit dem ba tàmm ko ba jàpp sax par dara nekku ca loolu day wërta mën a nekk ba noppi ñu toog bi seen pour fu mu toll mu nekk ñu ne ndimbalu yàlla dafa war a ñëw riba tasaaroo wor ger lekk alali doomu yi ci ak neen yooyu mënta tasaaroo ci askan yi séentu di maloo suñu borom tabaraka wa taala diine ndax tàyyal a jàng ak ñàkk a jàng ba noppi am fitu wax ci diine lu nekk sa xel nga wax jàpp ne noonu la ko diine war a gisee ba tax ngay wax ci diine loo xamut loo jàngul fenn déggoo benn boroom xam-xam wax ko loolu ci musiba yi wàcc ci xeet wi ci la bokk yi nga xam ne li feeg jullit yi delluwuñ ca gannaaw te dem jàngi diine ji tey seeni làmmiñ ba xam door a wax toog di seetu ndimbal caaxaan lay doon bokk na ci ragal sunu borom tabaraka wa taala ak sàmm ak am kóolute ak gu wóor néew goo xam ne néew na ko ci askan yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon gaaw leen defi lu baax ay fitnaa ngi ñëw de yoo xam ne bu ñëwee dana lëndam ba mel ni guddi nee na fitna la yoo xam ne bu ñëwee nit ki mën naa yeewu suba balaa jant bee soo mu jóge ci lislaam nekk ci kéefër nee na mën naa gont balaa asamaan a set mu génne ci lislaam dugg ci kéefër ñu ne ko loola nu mën a ame ya rasulallah sallallahu alayhi wa mu ne yabiu diinahu bi aradin min ad dunia nee na day jaay diineem ci somp yi ñàkk solo ci àdduna lu tuuti ci àdduna jaral na ko jaay diineem dellu gannaaw ca lam nekkoon kooku musiba la nga xool geneen wet gis ne ndaw ñi seen càggante jéggi na dayo su may wax nag ndaw ñi jóg bëgg lu baax moo tax ñuy wax mais ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci caaxaan ya ñooñu taxuñu ñuy wax waaye ndaw ñi jóg bëgg dund lu baax ba noppi bëgg sori xam-xam yi boroom xam-xam yi bëgg a sori boroom xam-xam yi bëgg teel a beru ñàkk a sàkku xam-xamu sariya ca nam wéree kooku fitna la ci ndaw lu tax mooy bëgg lu baax gane ca xol ba ak tàngoor ba muy dund dana tax woote yi nga xam ne dañoo jóg ngir sànq doomu aadama yi mën nañoo jóg tàbbi ca woote yi nga xam ne la leen tax a jóg mooy nax ndaw ñi nga xam ne dañoo toll ci wàllu tàngoor suñ leen waxee ni kéefër gi jéggi na dayoo te war nañoo yëkkati drapeau jàppale lislaam ñi ngi def jullit yi nangam ñi ngi def jullit yi nangam ñi ngi def jullit yi nangam kon nangam jot na lu mel noonu ndaw da koy gaaw wuy ji lool xam ngeen léegi boo déglu ci Afrique wala ci àdduna bi sax yaa ngi dégg ay ndaw yu génne seen i kër di dem di tàbbi ci béréb yoo xam ne béréb yi fitna la ndax béréb yi tuur deret te kenn xamul ci liñ koy tuur lu mu doon la nga jóg dem tàbbi foofa ngir yéene defe jàppale lislaam te fekk loolee di xew xamuloo yan plan lañ teg ca suuf yoo xam ne la ko tax a jóg mooy ndawi xeet yi nga xam ne mooy seen yaakaar ëllëg ñooña lañ bëgg a faagaagal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon waat naa ci yàlla ne balaa àdduna jeex jamono ngi ñëw joo xam ne kii rey kii reyaate xamul ci lan lay rey nit ki ñuy rey itam xamul ci lan lañ koy rey ñu ko waaw ah, yonent yàlla bi loolu nu am mu ne rey rek alharj mu teg ca ne la ci gën a doy waa alqaatilu wal maqtuul fi naar fitna ju mel noonu su ñëwee kay rey ak ka ñuy rey yépp ma ngi ci sawar ñoom ñëpp sawar lañu jëm nasal allahu salaamatu wal aafiya xam nga ne boo déggee ñu wax ay réew yoo xam ne boo demee ña fa nekk di xeex ay kuréeli jullit lañu yoo xam ne ñii ci biir kuréel la bokk ñee bokk ci bee kuréel coow dox seen diggante kenn ku nekk yéefarloo sa morom ñu bokk jaamaarloo di xeex te ñoom ñëpp ay jullit lañu nga jóge fa la nekk ci sa jàmm ne da dugg ci biir kuréel yooyee taxaw ànd ak benn contre benn yow suñ ñu reyee ca loola xamoo ci liñ la rey lu mu doon koo ca rey xamoo ci liñ ko rey a ngi di aaja bàyyi xel la mbokki jullit yi bokkoon na ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku woor weeru koor ba mu jeex nga woor juróom-benni fan ci weeru shawaal mooy weeru kori juróom-benni fan yooyee nag bisu iid bi moom mënoo koo woor waaye su xasee jàll nag bu la neexee rek mën ngaa daal di tàmbaliwaat woor sa juróom-benni fan toftale ko bu la neexee mën ngaa noppalu ba ca kanam te door koo def bu la neexee woor ko mu taftaloo maanaam wuub juróom benn fan yi benn yoon bu la neexee nga woor dara noppaluwaat def dara waaye fexeel daal weeru koor wi balaa weeru kori wi <coughs> balaa jeex nga góorgóorlu ba woor juróom benn fan yooyu ndax tuyaaba ju rëy moo ci am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko def am nga tuyaabay ku woor at mi yëpp loolu li ko waral mooy dangaa wooroon fanweeri fan fanweeri fan yi muy woor wi weer wi bi nga ko wooree bindal nañ la ci ay tuyaaba benn bis bu nekk fukki bis la benn bis bu nekk fukki fan la kon fanweer yi day daal di mat ñetti téeméeri fan soo ca tegee juróom benni fan te benn bis bu ci nekk ma ay fukk la kon boobu day daal di nekk juróom benn fukki fan kon trois cent soixante jours lay daal di nekk te li ëpp ci ati jullit yi noonu lay toll moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni juróom benn fan yooyu boo ko wooree mel na ne woor nga at mi yëpp loolu nag dàppante koori ngàtt nga yi dox ci diggante bi muy woor alxames ak alteneeg woor ñetti fan ci weer week fukki fan ñeent ci juróom fukki fan ak ñett fukk ak ak juróom yooyu ku ko mën a woor baax na lu mel ne su arafa yooyu yëpp dolli aw yiw lay doon dàqonte wut ak ne woor beneen bi ci des mooy bokk na ci jàngaleem alayhi salaatu wasalaam mooy kori bu fekkee ne dafa daje bisu ajuma ñi julli kori ci jullikaay ba wala ci jàkka bi su boobaa ajjuma nam nekke woon farata ca nit ña nekkeetul ci ñoom noonu farata maanaam nekkatu daal obligation boo xam ne faaw da nga koy julli ji wala nga am bàkkaar soo ko julli jee nag ko yaaba jàng fa ba tey loolu moo tax dañoo santaane imaam ya nañ julli ajjuma ca jàkkee ku mën a dem it nga dem waaye kum neexit nag nga ne man ci kër gi lay jullee jàkk yi nga xam ne daal dañoo baaxoo woon di julli ajjuma yooya danañ fa julli ajjuma su ko ku dem julli gi alhamdulilah boole nga ñaari yiw ndax julli nga sa julli iid waaye julli nga it sa xam ne it fa dafa sori wala am nga dara ci wala sax nammoo julli gi nga julli loo xam ne li wàññi dara la wala bu dee jàkka moo nekk ci sa koñ boo xam ne duñ fa julli ajjuma nekkul jumaay ajjuma waaye jàkka yi ñuy jullee julli yi juróom la bu la nekk nga dem julli foofu juróom wala nga jullee ko ca sa kër اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وارزق ولي امرنا بطانة صالحة تدله على الحق وتعينه عليه وخذ بناصيته للبر والتقوى allahuma inna nasaluka an tusahhila li biladina subul al amni wal istiqrari wal ازدهار وسائر بلاد المسلمين ونعوذ بك من الفقر والجهل والمرض ومن أسبابها اللهم اهد شبابنا إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وقهم شر الشبهات المضلة والشهوات المذلة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين